mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci turam ak jëmam di am yaakaar ne yéen a ngi may dégg bu baax bu fekkee euh, yéen a ngi gis écran bi tamit ngeen def ma signe incha allah. waaw salaamaaleykum. wa salaam yéen a ngi gis écran bi. waaw. d' accord. enregistrement bi waaw xaaral ma xool. waaw ah mu ngi mu ngi dox voilà donc euh, balaa ñuy commencer ñu ngi leen di ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci weeru gàmm bi ñuy bi ñu dugg di ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee ko ak jàmm te yàlla ñu yàlla may ñu dundal lépp loo xamante ne nii war na ci xàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te buñ ko defee itamit yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa xam naa nag comme ni ma koy. aouzu billahi min kalimati ana ni ma koy faral di waxee sou souvent gàmmu dafa bëri ay façon kenn ku nekk ak anam bi muy gàmmoo ci ni ko yàlla may ak ci ni ko yàlla mën loo euh, bëggoon naa bu fekkee dina mën a nekk weeru gàmmu bi tey ba weer bi di jeex maanaam cours yi ñuy def ci weer wi yëpp ñu may leen ko gratuitement voilà donc yéen ñi nekk ci platform bi ak euh, yéen ñi nekk ci TikTok beeg. Euh, Facebook bi yëpp jarul ngeen di fay weer wi sauf français français symbolique comme on dañ koo def yéene ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax am na ñoo xamante ne su seen su gàmm jotee ci lañu am ci lañuy gàmm bu ñuy bu fekkee dañoo am marchandise yu ñuy jaay ñu wàññi ci cinquante pour cent bu fekkee dafa am lu ñuy euh, ku ñuy liggéeyal ñu wàññil ko coono yu liggéey bu fekkee dafa am ku ñuy fayee ku ñu wàññil ko coonoy fay bi donc modestement bu fekkee yàlla dañ dinañ ko nangul fas na nañoo yéene loolu ñeenti cours yi ñu def ci semaine gàmmu gi mooy tey ak euh, bu suba bi ak ñaari cours yi di ñëw incha allahu taala ñu may leen ko gratuitement ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñi ngi déparé tey ci règle numéro huit règle bi li muy wax mooy man lam man lam yutaarad lahu bi jarxin wala taadilin waxtajja bihi cheykhaani aw ahadihima wala aw ahaduhuma maanaam koo xamante ne ni euh, amul ku ko jarxu wala ku ko taadil te ba pare buxaari ak muslim wala kenn ci ñoom argumenté ko ñu ne la fa huwa siqatun ñu ne kooku siqa la alors <clears throat> xam ngeen ne dafa bokk ci règle jàngum xadis mooy nit ki il faut mu am ku ko jam wala ku ko ku ko ku ko sanctifié maanaam ku ko taadil mooy témoignage à charge wala témoignage à décharge léegi nag bu fekkee ne benn ci ñaari yooyu am na dafa am conséquence yu muy am ci riwaaye nit ki su ko nettalee waaye boroom xam-xamu xadis yi dafa am lu ñuy tuddee wala ñaari nit ñu ñuy tuddee ash-shaykhaan mooy buxaari ak muslim ñooñu suñu riwaaya xadis seen xadis dafa am place bu ñu leen di jox bon on peut discuter nag ci euh, taxawaayu riwaaya boobu noonu ak euh, wiraayam wala ñàkk wiraayam mais daal li règle bi di wax mooy képp koo xamante ne nii buxaari wala muslim wala ñoom ñaar riwaaye nañ sa xadis istishaadan te amul kenn koo xamante ne ci boroom xam-xam yuy wax wax wax na ci yow moo xam à charge wala à décharge ñu ne kooku dañ koy considérer comme quelqu'un de fiable qu'est-ce que cela veut dire pour ñom manam pour borom xam-xam yi wax jaradu bukhari riwaya ci yow hadith lolu gage de fiabilité la et d'honorabilité jaradu muslim riwaya ci yow hadith lolu gage de fiabilité la wala d'honorabilité soxlagul soxlaagul ma ci wax sama position man voilà mais daal euh, li moy première li moy première règle bi ngeen wara japp comme ni ma leen yàgg di waxee suñuy jàng dañuy jàng d'abord ñoom li ñu wax de façon classique bu ñu paree bu fekkee am nañu luñ ci teg comme commentaire wala contre argument ñu doog ko indi mais il est bon kuy jàng bàyyil ba pare il est bon kuy jàng mu jàngale li nga xamante ne moom la ñuy règle yi ñuy jàng de façon classique. Alors, قال الحافظ الذهبي رحمه الله إمام الذهبي نينا آه، من احتج به كيف كو خمانتني بخاري أك مسلم احتج احتجاجي نانيو أو أحدهما ولا كين ci نيوم ñaar احتجاجي نكو موي بخاري ولا مسلم بخاري أك مسلم ولا بخاري ولا مسلم دونك نيوم ñaar ولا كين ci نيوم ñaar ولم يوثق ولا غمز مانام كيب كو خامتيني نيوم نياار احتياجي نانيو لاج احتياجي نانيو لا تا امول كين كولا توثيق امول كين ايتم كولا جام غمز في موي آه، جوريحا امول كين كولا جام مو نفا هو ثقه حديثه قوي مو نكو كو دنجي كونسيدير ان تانك ثقه حديثم ايتم دنجي كونسيدير ان تانك حديث بوير لي موي لي موي كونستركسيون كلاسيك بي lii mooy règle classique bi nga xamante ne ni moom ngay jàng te moom lañ lay moom lañ lay laaj itamit boo nekkee ci université wala boo nekkee ci jàngalekaayu classique yi léegi nag en tant que doomi aadama bu normal nekk ci monde buy avancé nekk ci monde contradictoire euh, boo xamante ne ni souvent tu es appelé à avoir des gens qui t'apportent la contradiction tu n'es pas tenu obligé nga gëm lii ndax amul benn amul benn amul benn nit ci wàllu xam-xamu Hadis, <clears throat> ak science am ni mu complexé ñu ne la turam su ñëwee ci téere sàngam rek loolu gage de d'honorabilité la wala de fiabilité on peut avoir des gens yoo xamante ne ni seen tur ñëw na ci Bukhari wala ci muslim te nekkuñu jegewuñu fiabilité dinañ leen ci jox ay exemple Madame lu malheureusement moom moo yóbbee yenn genre point faible ci vis-à-vis ak ñi nga duñu ay ndax dañu jël ñaari façon sanctification ni yàlla santut leen ko yonent bi santut leen sincèrement mbooleem alxuraanu yàlla bi wala bi gis fu bi wala fu ñu nit wala de sorte que lépp lu ñëw ci téere boobu rek yow ne ku turam ci rek ne ko fiable la wala euh, honorable la lii maanaam la stagnation science parce que dafay limité xelu doomi aadama bi en réalité ndax boo demee ba gëmloo benn bay Hann wala benn Omar Thiam que euh, téere téere Buxaari wala téere muslim bu fa turu Cheikh Baye ñëwee rek Cheikh Baye moom bul lu ñu teeti affaire am kooku siqa la même bu fekkee kenn waxul ci moom c'est que y problème ndax bu boobaa dafay tax dafay nekk ci benn bulle boo xamante ne nii dootul nangooti gëstu dafay ragal tu lui tu lui imposes des obstacles intellectuels maanaam des barrières yoo xamante ne psychologiquement du ko ñemee franchir ndax daf naan ah boroom xam-xam yi nee nañu nangam su ma ko franchir damay égaré wu wala su ma ko franchir donc on lui impose des des obstacles et des barrières yoo xamante ne ni moom mooy limiter xalaatam moom mooy limiter courage intellectuel am moom mooy limiter rigueur intellectuelle am bu ko defee julit bi nekk ci benn genre Paris perpétuel boo xamante ne ni rien ne le justifie en réalité rien rien. charxul qaayida charxu qaayida bi mu ne haadihi alqaaidatu tatanaawalu xukmu man axraja lahu cheykhaani aw ahaduhuma wa masturun mu ne qaayida bi li muy jàngale mooy àtteey koo xamante ne buxaari wala muslim dañoo riwaaye sa xadis te fekk kooku moom mastuur la lan mooy mastuur mastuur mooy koo xamante ne ni euh, duwul ay ni waaye lam yataarad lahu ahadun bi jarxin aw taadil voilà moom la ñuy tuddee mastuur mu ne walam yataarad lahu ahadun bi jarxin wala taadilin fa xukmuhu annahu siqatun kooku atteem mooy siqa la li ann ixtijaaj alcheyxayni aw ahadihima bihi tawthiqun lahu ndax lan dañuy considérer ne buxaari wala muslim la fekk ñu argumenté kooku dafa mel ni tacitement dañ ko tawsiq ñoom moo tax ñu argumenté ko c'est-à-dire man su ma riwaayaa sa xadis même bu fekkee waxuma ci yow dara keneen waxul ci yow dara le fait que ma riwaayaa sa xadis rek c'est implicitement dama la dama la jox timbre d'honorabilité wala de fiabilité moo tax ma wóolu la ba riwaayaa sa xadis Alors, <clears throat> آه. ما تودي بله ما تودي دفعم بله ما mbokk yi nekk ci facebook bi ak ci tiktok bi baal leen ma tuuti ma am lu ma lu ma réglé euh, <clears throat> sëñ Maat wala Mamadou Aliou yéen ñi nekk fii ban lien ngeen utiliser lien bi ñu yónnee ci groupe bi ngeen utiliser wala. waaw waaw man moom lay utiliser bi ñu. voilà baal leen ma tuuti parce que dafa mel ni <clears throat> dafa am mbokk yu jotagul lien bi ba léegi maa ngi jot ay message donc excusez moi je ma yónnee leen lien bi après je vous je reprends le live bu fekkee coupé na ngeen bal ma yéen mën ngeen mën ngeen resté resté ok <coughs> salaamaaleykum aleykum salaam Seydi na nga def sant bu baax alhamdulilah macha allah naka naka liggéey bi sant bu baax alhamdulilah te dama foogoon sax finalement pour daam parce que moo yaakaaroon seen yaram bi moo xaw a tawat. dëgg na kay damaa gis ne comme après ak semaine gàmm gi ñu nar a dugg dafa nar a kii moo tax ma ne xaaral ñu. dëgg la kay. mën mën nañu mën nañu ah, mën nañu kii rek incha allah dafa mel ni yónneewaat na lien bi sax de. si si yónneewaat nañ ko yónneewaat nañ ko. voilà merci merci bien donc. yéen ñi nekk ci groupe bi bu fekkee yéen a ngi may dégg mën ngeen na accéder ci lien bi directement yónnee nañ ko ci fi leen koy yónnee alors <clears throat> on continue on continue ba leen ma ak ci dog-dog boobu waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Baye Anne maa ngi lay ziar Xaasim Ndour na ngeen def soxna Mina maa ngi leen di ziar bu baax sëñ si na ngeen def soxna Mina bàyyi nañ si jàmm bu baax alors Seydi maa ngi doon wax balaa ngeen di dugg si ma ne mbokk yi nga xamante ne nii euh, dañuy dañuy jàng ci ci ci ci kii bi ak ñi nga xamante ne ñoo ci Facebook beeg TikTok bi yëpp pour pour barkeelu ci gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk ci lim am lay gàmmu ak ci lim mënee. suñu yéene ëpp na loolu waaye nag dañuy jéem a xencu xeetu bi rek dañoo bëgg euh, cours yi nga xamante ne danañ ko def ci weeru gàmmu gi yëpp ñu def ko gratuit bu ko defee fay bi wàcc ñi nga xamante ne ñoom ñooy fay euh, ñi nga xamante ñoo nekk ci Facebook bi ak TikTok bi tamit ñu may leen ko intégralement gratuitement ñeenti cours yi nga xamante ne ci mois weeru rabiul awal bi lañ koy def mu nekk suñu participation ci gàmmu gi incha allahu taala Euh, dañoo jàngee ci Maulana Chérif Ibrahim Saleh mu ne gàmm dafa bëri façon am na ñoo xamante ne bu bu ñu amee seen magasin gàmm jot nga wàññi say prix sax de cinquante pour cent wala de vingt pour cent yéene ko màggalee yonent bi mu ne gàmm nga nga am sa liggéeykat bu lay liggéeyal gàmm jot nga wàññil ko liggéey bi gàmm nga nga am sa euh, doom gàmm jot nga bégal ko gàmm nga naka noonu tamit nga am sa patron booy liggéeyal gàmmu jot nga yokku lu hitte ci liggéey bi nga koy defal gàmm nga ainsi de suite donc ci bunt boobu noonu ñu ne ñun tamit ci suñu cours yi ñu def ko gratuite ci weeru gàmm gi ba gàmm gi jeex incha allahu taala yàlla nañu ko yàlla nangul bi jeex rasulillah alors donc on continue <coughs> ma ne tey qaayida bi nga xamante ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy jàng mooy règle buy wax naan képp koo xamante ne nii dafa képp koo xamante ne ni Buxaari ak Muslim dañ ko argumenté te amul kenn koo xamante ne def na témoignage à charge wala à charge ci moom mu ne kooku mënees na koo considéré comme siqa imaamu Zahabi mu ne képp koo xamante ne Buxaari ak Muslim ixtijaajee nañ ko walam yataarad lahu ahadun euh, bi jarxin walam yuwasiqu ahadun wala rumiz fa huwa siqatun xadiisuhu qawiyun mu ne kooku mënees nañ koo considérer comme siqa hadith yi tamit mënees nañ koo considérer comme hadith bu wér alors loolu mooy règle règle général bi léegi nag ñu ne la képp koo ñëw ci biir buxaari ak muslim nga fekk fa xadisam te nga dem ci téere li ñu tuddee téere jarxu wa taadil yi amul kenn koo xamante ne jarxu na ko wala taadil na ko mu ne kooku jàppeel ne siqa la ndax mu jaradu buxaari ak muslim argumenté ko dañuy jàpp ne kon dañ koo tawsiq dañ koo tawsiix moo tax alors mu ne waqad wusifa xadiisuhu bi annahu qawiyun ولم يصفه بالصحة لاحتمال أن يكون متوسطا بين الثقة السبت الصحيح الحديث وبين ثقة الصدوق الذي غالب حديثه من مرتبة الحسن من ذهب كلفينا واجي د قوي معنى حديثه قوي au lieu de sahih sahih ndax lan ndax amana amana koku haditham yeggul ci darajaay sahih waye da fay nek ci ñi nga xamantene ne seen xadis martabaay hadith hasan la am donc gis nga ne probabilité la ak euh, amana ak mën na am probabilité la ak amana ak mën na am waye mu yok ci lo xamantene lu doy war la mu ne fa innal mutaqaddimin lam yufarriqu bayna wal hasani ndax ñi jiitu woon ci boroom xam-xam yi daanuñu différencier diggante xadis saxiix ak xadis xasan donc am na ci ñoo xamante ne ci ñoom daan nañ jublu bu ñu waxee xaasa xadisun xasanun ñu jublu ci xadisun saxiix na ñi daan nañ wax xaasa xadisun saxiixun jublu ci xadis boo xamante ne xasan la di lekk di lekk comme ni ngeen ko xamee Istilahu hadith Hasan. ak définition imam mom moko moko moko comme ni mais avant avant tirmisi te avant lolu dañ dan rek leg al husnu ala la ak yu wa vice versa alors الإيراد ولكن إطلاق هذه القاعدة على هذا النحو فيه نظر من فيه نظر من إطلاق règle bii ci anam bi mu ne mën nañ cee taxaw seetlu nag wax dëgg ndax lan ndax imam muslim bon ngeen baal ma mais souvent man lii laay amee problème fii laay amee problème ak ñenn ci bindkat yi da ngay gis ay mbir yoo xamante ne daf lay leer ne c'est une manipulation du texte wala c'est une malhonnêteté dans le texte je suis désolé de le dire mais c'est c'est apparent ndax xoolal li mu wax mu ne fa lakin itlaaq hadihi al qaida ala hada al nahw fihi nazar loolu kenn amu ci wuute nga ne boyal qaida bi nii de façon générale mënees na cee taxaw seetlu ñu ne waaw nga ne ko ndax lan mu ne fa inna al imama muslima qad yaxruju ahadisa baadi duafa mais normalement waroo wax muslim kese ba ci ci boppam du ne muslim kese mooy ay ont du on est d'accord sur ça ba ci danay génne ay nit ñoo daif attendez kan vous gën a daif koo xamante ne d'abord d'abord tontu leen ma question c'est une question que je vous pose quand moi daif qui est daif comment quand est-ce qu'on considère quelqu'un comme daif allez-y si vous avez la réponse s'il vous plaît je vous écoute quand est-ce qu'on considère quelqu'un comme daif quand qu'on considère une comme daif Matt. Euh, su dee. <coughs> benn ci ponk yu ñuy considéré comme siqa dafa manqué ci moom. mooy comme ban ak ban. Euh, par exemple su dee mun a nekk par exemple ci daptam. <coughs> Mhm. mun a nekk aussi ci adaal tam su dee adaala maanaam soit koo xam ne dañ koy cons dañ koy jam euh, maanaam dañoo xam ne day day day day fen wala kuñ tuumaal fen wala koo xam ne day def jëfu maanaam. fekk kii day def euh, jëfu kii bi ko sax zim di yëpp sama juumal mooy koo xam ne daal day def bàkkaar te du ko nëbb euh, genre yooyu daal mooy ku ñu jam soit ci jikko adaala maanaam ku ñu jam ci adaalam wala ci daptam d'accord on est d'accord on est d'accord sur le principe que ku ñu jam wala ku amee ay jikko yu ñaaw kooku mooy daayif te bokk na ci jikko yu ñaaw yooyu ñu ne faasiq bon autrement dit mën nañu wax ne euh, on considère quelqu'un daif dès lors que mu am ay borom xam-xam yu ko étiqueté noonu d'accord mais dites-moi de vous en moi ay borom xam-xam étiqueté nit ci benn étiquette ak yàlla wala yonentam étiqueté nit ci benn étiquette kan moo gën a légitime pour étiqueter doomi aadama boobu maanaam ban étiquette mooy gën a valable tey jii par exemple bu dee da nga am benn Cheikh Baye nga am Massamba ak Mademba ñu étiqueté ko yàlla wala yonentam wala ñoom ñaar ñu étiqueté ko ñaari étiquette yooyu bu yàlla ak yonentam bi ak ñaari ñaari Masamba ak Mademba yi ban moo ciy gën a valable ci man selon vous ban mooy gën a valable yéen ñi nekk ci TikTok bi ak Facebook bi ci seen bokk mën ngeen bind seen réponse ci commentaire allez-y ban mooy gën a valable Hmm? <clears throat> da di nelaw wala bu yàlla ak bu yonentam alors bu fekkee d'accord nañu ne bu yàlla ak bu yonentam moom mooy gën a valable léegi <clears throat> xool leen ñi ñuy tuddee boroom xam-xamu xadis avec tout le respect qu'on leur doit bu Yaxya ibnu Ma'in wala imaam diw wala imaam diw waxee ci maat ba ne daif la ñu sànni xadisam mais bu yàlla étiqueté Masamba ne faasiq la kooku moom ñuy ñuy bind ci moom radiallahu anhu maanaam am na koo xamante ne aaya alxuraan moo wàcc ci moom in jaakum faasiqum bi na ba in fatabayyanu ñu xam kan la carrément mais radi allahu anhu lañ koy wax te yàlla moo ko tuddee faasiq te ñoom vous voyez où je voulais venir ñoom borom xam-xam yi ñoo lay wax ne ku am jikkoy faasiq kooku daif la maanaam ku am benn jikkoy fisq bu fës daif la léegi yàlla ci boppam décrété min fawqi sab'i samawat que ne nit ki faasiq la tuddee ko faasiq ñu ne kooku allahu anhu la ñuy wax ci moom muy benn ñaareel bi koo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko joxoñ ne kii laayin la maanaam kii ku yàlla rëbb la maanaam yonent bi moo ko étiqueté ne kii nit ku bon kii moom il est disqualifié tamponné ko tampon bu ndax lim xam ci jikkoom ak lim xam ci lim nar a lor xeet wi ëllëg kooku dañuy bind ci moom radiyallahu anhu parce que yonent bi moo ko moo ko tamponné tampon bu rouge mais bu ko Yaxya ibnu Maïn tamponné woon tampon bu rouge ñu bu ko imaam diw wala xaafis diw tamponné woon tampon bu ñu jël waxam ñu ñu efface ko du mais bu ko yonent bi tamponné wa moom tampon yonent bi pour ñoom amul benn valeur damay dégg souvent xaw ma démb rek dégg naa ko benn mbokk bu ma yónnee benn vidéo kenn ci mbokk yi fii ci Sénégal maanaam di wax bay wane ne Sénégal buñ fi buñ fi saagaa yonentu wala buñ waxee yonentu nangam kenn du yëngu alors que buñ waxee sëriñ diw nangam àdduna bi yëpp yëngu ñu bëgg a yëkkati yowmal xiyam mais boo bëggee gis géométrie variable boobu dëgg et de façon institutionnelle demal ci téere yi demal ci téere xadis yi ak li wax téere salaf yi ñoom manam fofu ngay gisee nit koo xamantene ni yonent bi dafay wax ci moom lu mel ni innama sabilu ñu jël ko sang bam set di jël xadisam di barkeelu ci moom benn waay boo xamante ne bu Yaxya ibnu Maïn waxee ci moom lu gën a tuuti loolu ñu sànni ko ci mbalit ma maanaam mooy ne waxu yonent bi amul benn valeur pour ñoom bu dee saaga yonent la ban saaga moo gën a rëy loolu je veux pas souvent di dugg ci yenn débat yu bas étage yi sincèrement mais c'est juste que il faut il faut leur montrer souvent leur malhonnêteté ci li ñu def raawi diw nit kuy riwaaye xadis diw benn boroom xam-xam su waxee ci moom wax ju ñaaw bu dee boroom xam-xam boobu dañ koy tuddee mu'tabar kooku dañuy bàyyi xadisam maanaam tey ji imaamul Buxaari su étiqueté Moussa ne daf doon wadu xadis Moussa moom il est fini imaam Abu Daawuda wala imaam Ahmad ibnu Hanbal su étiqueté momado Aliou ne Mamadou Aliou daf daan sàcc xadis kooku si fini dootuñ considéré ki ne nit ku baax la ci kaw suuf foo indee xadisam ñu naan la tegal ci suuf mais yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su xoolee nit ne kii moom ku yàlla rëbb la kii moom laayin la kii fitna la pour sama xeet wi wala yàlla xool nit ba mu ba mu doy ko ci asamaan mu wàccee ne kii faasiq la maanaam mooy ne mu ñu koy moytuloo kooku moom dañuy bind radiallahu anhu ci moom demal nga xool ku Buxaari yi wax ne dajjal la wala ku imaam Malik wax ne dajjal la wala ku imaam Ahmad wax ne kazaab la nga bindal ko radiallahu anhu nga xool li ñu lay wax indi leen xadiisu demal nga indi leen xadiisu Muhammad ibnu Omar al Waaqidi rek nga xool li ñu lay wax ci moom wala nga indil leen xadiisu Abu Mixnaf Lut ibnu Yaxya nga xool li ñu lay wax ci moom essayé ko essayé ko إزاي يكون غفار ألوغ دونك من لا فإن الإمام مسلم إمام مسلم قد يخرج أحاديث بعد الضعفاء لأجل عند حديث ينك أي ضعفاء لأنها عنده بعلو مع كونها محفوظة من رواية الثقات عنده بنزول من لك لك دا فاي اندي حديث نين نيو خامتني اي ضعيف لاني نداخ لان parce que daf koo amee ci yoonu ulu ànd ak ne hadith bobu amna ci benen riwaya bo xamante mo gëna wér waye dafa am nuzul est-ce que vous comprenez li mu bëgg wax Seydi comprendre nga. comprendre na ke comprendre na très bien. qu'est-ce qu'il veut dire. en fait pourquoi imam muslim des fois di jël hadith ko xamné dañ ko tax ci daïs. secondo par exemple moom mu am benn chaîne de transmission boo xam ne lu ko séparé ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam chaîne de transmission bu gàtt la mais xadis boobu noonu dafa am benn koo xam ne daif la ci biir mu amaat même xadis bi mais mu amee ko ci beneen tarif boo xam ne chaîne de transmission bi dafa xaw a gudd donc moom day andi chaîne de transmission bu gàtt bi sachant que en fait xam na ne xadis bi wér na parce que am na ci beneen chaîne de transmission mais en fait moom dafa andi chaîne de transmission bu gën a gàtt bi. d' accord c' est ça c' est ça. donc quand euh, ngay am benn hadis benn bi ñëw ci benn chemin avec une chaîne de transmission bu longue par exemple neuf personnes mais cette chaîne est authentique même hadis bi ñëw avec beneen chaîne de transmission bu am trois personnes wala cinq personnes donc moo gën courte mais elle n'est pas authentique donc mon mii bind téere il va préférer bind chaîne de transmission bi am 5 wala 4 bi bàyyi chaîne de transmission bi am 9 bi pourquoi parce que mu ne la il va considérer euh, longueur wala euh, nu mu tuuti euh, nu mu tuuti gàttaayu chaîne bi jege bi mu jege yonent bi proximité bi chaîne bi am ak époque yonent bi moom lay considérer pas authenticité voilà c'est, c'est très problématique en fait. C'est très problématique. ndax la bu dee yow yow en tant que intellectuel bu honnête booy bind da nga warlul sa bopp ne da ngay bindal nit ñi lu authentique et sa diggante ak yàlla waratoo am ay considération époque parce que amaana amaana ki bind noonu ci moom di indi déjà gis nañu musiba yi parce que sanctifié nañ sa téere bi ba képp ku ci il est au-dessus des lois il est au-dessus de la loi donc indil nga ñu koo xamante pour couper chaîne bi gàttal ko raccourcir ko indil nga ñu nous dafa pour dugal boppam ci chaîne bo xamantene ne nekku ci woon et yow pour des considérations de longueur ou de largeur nga ñëw jël chaîne bu wérul bàyyi chaîne bu wér pour nous dire après non l'essentiel mooy hadith bi wér na non par honnêteté da nga ñoo war a indil da nga ñoo war a indil chaîne bi lu mu gudd gudd même si c'était une chaîne kilométrique da nga ñu ko war a indil dès lors qu'elle est authentique et tu nous laisses chaîne bi nga xamante ne c'est pas authentique même bu fekkee benn nit kese moo ci nekk c'est pourquoi souvent suñu mbokk yi tudd yi ñuy tuddee ay coraniste wala ñu ñuy tuddee ay xawma euh, muslim xawma maanaam sooy <clears throat> sooy waxtaan ak ñoom bàyyi bàyyi ma bàyyi ma nañ jàll donc dafay considérer nuzul kama sarraxa bi zalik comme ni nga xamee ne noonu la ko waxee mu ne fala budda min imali hadihi al qaida bi xazar donc qaida bii nii nga xam ne moom la ñuy wax ne képp ku buxaari ak muslim indi turam ci seen téere yi te fekk amul kenn ku ko jar wala ku ko taadil dañ ko war a considérer comme siqa mu ne kon dañ ko war a jëfandikoo avec précaution dañ ko war jël avec des pincettes autrement dit donc on doit le avec des pincettes li mu bëgg a wax rek mooy qaayida bi wérul mais imaginez Buxaari riwaaye na xadiisu Marwaan ibnul Xakam Buxaari riwaaye na xadiisu Ikrima Buxaari riwaaye na xadiisu Imran ibnu Xittaan Buxaari riwaaye na xadiisu euh, Xurayz ibnu Usmaan al-Himsi Buxaari riwaaye na xadiisu euh, Ismaïl ibnu Abi Uways et tant d'autres tant d'autres te ñoom ñëpp ñu ne la supposons ñooñu sax xam nga am na lu lu ñuy wax ci ñoom mais bu fekkoon ne dañoo nekk ci cadre koo xamante ne kenn waxul ci ñoom ñu ne la ñoom ñëpp da ngay considérer ne ñu wér lañ parce que Buxaari indi na seen tur mais bu fekkee loolu la bu fekkee loolu la mi yàlla indi ak Iblis mi yàlla indi ci alxuraan bu leen kenn bu leen kenn ngàññati bu leen kenn ngàññati ومثال على ومثال على هذه القاعده مثال كي قاعده بي كتدو محمد ابن غرير ابن وليد من احتج به البخاري ولم يتعرض له احد بجرح ولا تعديل بخاري ارجمانتي نكو تكن جرحه كن تعديله الا ابن حبان لدول ابن حبان ذكره في الثقات عندي نكو تيري مثل الثقات وهو متساهل ابن حبان متساهل لا امون لي اختلاكم نين كي وخي ومتأخر عن البخاري il buxaari te buxaari moo jiitu ibnu xibbaan mu ne fa xukmuhu annahu siqatun li ixtijaaji buxaari bii donc atte bi mooy kooku siqa la parce que buxaari argumenté tout tout mais bu fekkee waa ji n'a jamais existé nag bu fekkee c' est quelqu'un benn mythe la boo xamante ne kenn xamul kan la c' est une légende est-ce que duñ dugal probabilité boobu est-ce que amul benn waay bu tudd je je dis ça comme ça est-ce que amul benn waay bu tudd Malik ibnu Aws ibnu Hadasan boo xam ne kenn xamul kan la je dis ça juste comme ça est-ce que amul من ne قال الحافظ في التقريب حافظ في ابن حجر ابن حجر ibnu صدوق wa haza ixtiyaatun mu ne loolu ibnu xajar wottandiku la bu mu am moo tax mu wax ne waa ji saduq la kese parce que Buxaari ixtijaaje na ko et ibnu Xibbaan malgré qu'il soit antérieur à Buxaari indi na ko ci téere bu tudd as donc da gis ne kon jugement wu ibnu Xibbaana li ko influencé mooy tudd bi Buxaari tudd waa ci téere mais du ne waa ji moom ci boppam mooy ku wér façon yu mel nii façon yu mel ni fii laay waxee souvent suñu mbokk yi nga xamante ne ñooy tuddee seen boobu ay coraniste di weddi xadis yëpp jumlatan wa tafsilan loolee indil ci xadis ñu naan xadis yi omeyyade yi la woon nangam ak nangam c'est bien beau souvent de dire que xadis yi omeyyade yi ñoo ko inventé nangam ak nangam mais boo amee rigueur dëgg boo amee rigueur dëgg balaa ngay sànni xadis yëpp naan omeyyade yi ñoo ko inventé wala abasir yi ñoo ko inventé da ngay comprendre d'abord chronologie des ak inventaire u xadis yi ak façon bi ñu doon defee xadis yi man gëm naa xadis du ma sànni xadis yëpp am na nag gëmul mais mais boo comprendre ni Ibn Hibban tawsiq na parce que Buxaari moo ko influencé jugement wu Ibnu Hibban et imaginer façon nit ku mel noonu donc ak ñu mel ni moom ñaata xadis la ñu mën a riwaaya léegi tey nga gis benn waay il euh, bon il coraniste wala muslim wala je ne sais pas quoi. mu ñëw rek ne waaw am na benn xadis bu nekk ci téere sàngam jox la benn numéro ne wax nañ ne yonent bi def na nàngam na ko ne connaît absolument rien ci wàllu chaîne de transmission bi ak ci existence wu ñu nekk ci chaîne de transmission bi ak seen véracité et cetera te fekk bu teylu woon bu teylu woon am rigueur dëgg doon na mën a seppi xadis boobu sànni te du tee mu gëm yonent bi gëm xadis gëm leneen ak leneen te du ko yàqal dara ci diineem

ak ñi nga xamante ne nee nañu xadis boo xamante ne dañ ne benn aaya benn verset bu bëy lekk maanaam ay mbir yoo xamante ne ñoom ci seen bopp soo leen toppoon ci leader intellectuel bu ñu toppoon mbir yi dangay gis ne ils sauront faire la part des choses pas ñëw seen borom xam-xam yi bind nañ ko ay ja donc ça vous engage tous maa hakaza ya saalu turadul mbir yi demee noonu warta tëddee noonu yaa yaa dee Il y a des choses beaucoup plus subtiles que ça et beaucoup plus complexes que ça. Un misal bi mooy Muhammad Ibn Qudaamat ibn ismail sëñ Galas sama ma maa ngi maa ngi lay ziar Muhammad ibnu qudama ibnu ismail mu ne anhu muslim في في الصحيح امام مسلم روينا حديثا في الصحيح من ولم يوثق ولم يوثق ولم يجرح ما نام امول كان ولم يوثق امول كان كو توثيق امول كان كو تجريح وذكره ابن حبان في الثقات ابن حبان عندنا كو في الثقات ابن حجر موم بمو نيوي تي موم دافني مقبول وهذا ماخوذ ولا وهذا مما يؤخذ عليه تي لولو بوكو نتي ليغا خامتني من نكو كريتيكي ابن حجر لوتاخ مو مقبول بون vous connaissez maratibul jarh wa taadili suñu waxee maqbul suñu waxee saduq suñu waxee mutawasit daal lañ ci jublu selon ibnu xajar boo demee ci saxaawi leneen la boo demee ci zahabi leneen la boo demee ci ibnu abi xaatim leneen la lu bokkut ak loolu voilà donc benn bu nekk ak martaba donc je résume je résume chapitre bi chapitre bi li mu wax mooy bépp nit boo xamante ne ni Buxaari ak Muslim riwaaye na xadisam te kooku amul kenn ku def témoignage ni à charge ni à décharge ci moom kooku on peut le considérer automatiquement comme quelqu'un de fiable mais cette règle là a été un peu critiquée parce que am na ay faits yuy weddi loolu ndax Buxaari ak Muslim léeg-léeg ñu riwaaye ci ay nit ñoo xamante ne ni ce sont pas des gens fiables ne sont pas des gens fiables du tout. Donc, c'est une règle qui est écrite, mais qui n'engage pas ou qui ne doit pas engager les musulmans. Quelqu'un qui est dans Bukhara et musulman, quoi qu'il puisse dire, il faut que nous disions les ci rayon comme nous Voilà, règle Et puis c'est tout. Il n'y a, pas, il a pas que qui tourne ci terrain sangam la donc dañ koy par la force. <clears throat> règle bi ci topp mooy xukmu riwaayatil mubtadia wa shuruuti maanaam attey riwaaya nitu bidaa ak chart yi nga xamante ne moom lañ tënk pour nangu xadiisam maanaam accepté xadiisam kan mooy kan mooy nitu bidaa selon vous kan mooy nitu bidaa pouvez-vous ma donner la definition s'il vous <coughs> allez-y yéen ñi nekk ci commentaire yi tamit ci ngeen bokk mën ngeen ñuy wax yi su fekkee teewlu ngeen ko kan mooy nitu bidaa ak lan mooy àttee xadiisu nitu bidaa No, no. nitu bida ak lan moy lan moy lan moy até xadisam lan moy até xadisam ban ban place lañu ñuy jox xadisu nitu bida bon <coughs> non non du loolu du loolu abu

le fait de qualifier quelqu'un comme nitu Bida, loolu vous savez pourquoi parce que yonentu sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais jamais jamais au plus grand jamais qualifié quiconque de Il mësta indexé nitu donc le fait de qualifier quelqu'un de taxer quelqu'un de nitu Bida, loolu jàppaleen leen boobu ma jox leen ko ma jox leen ko àddiyee ci gàmmu gi le fait de taxer quelqu'un de nitu bidaa bidaa la ci bidaa yi yonent bi xool kenn amul benn xadis maanaam doo benn xadis doo ma ko indil même bu wéerul amul xanaa bu waa soxal boppam xadis mawdo waaye xadis daif amu ci amul benn xadis bu yonent bi mës a kenn ne ko yow nitu bidaa la tey ji ñuy woowee seen bopp sunna ci biddaa gi ñu nekk ñoom tey manam ñi ngi ci bidaa bi gën a rëy bi nga xamante ne moom la ñu wax ne moom la ñuy xeex parce que ñi ngi jël ay étiquette di ko takkal nit ñi étiquette yoo xamante ne yonent mosu koo takkalaate ñu ngi séddale ay classe ak ay rang ak ay tur yoo xamante ne yonent mosu koo tuddee nit donc euh, ñoom ci loolu maanaam ci appellation yooyu ak qualificatif yooyu ñuy jox nit ñi ci lañu ñu tëralee règle bi ñuy bëgg a jàng mooy képp koo xamante ne dañ ne nitu bidaa la ba pare muy tengal ci bidaawam ba pare di woote jëmee ci bidaawam maanaam kuy def propagande de son de son bidaa comme on ñu ne kooku su riwaaya xadis kenn du jël xadisam mais inversons un peu les rôles inversons un peu les rôles taxawee côté bale di gis affaire bi comme 6 léegi dellu fi ma taxaw man ma taxaw côté boobu yow da nga koy gis comme 9 man ma gis ko comme 6 maanaam yow da nga nekk ci benn affaire nga tuddee ko sunna man li ma nekk wuuteeg yow li nga nekk nga tuddee ko bidaa ba tax nga ne man su dee maa ngi woote jëmee ci li ma nekk. man kenn du jël sama hadith mais en même temps yow soy woote jëm ci li nga nek yow yow danañ jël sa hadith yow parce que yow ya tuddé sa bop sunna wala yeen yéen tuddé sen bop sunna j'espère que yeen ngi comprendre limay wax ni c'est un peu profond c'est un peu profond j'avoue mais essayez de comprendre sincèrement c'est pas c'est pas des rigolades c'est c'est extrêmement profond manam yow da nga nek ci li nga nek nga apprécier ko nga ci wote jeme di ci waar nit ñi di ci daawa nit ñi nga am tour boko tuddé man ma nek ci lima nek nga ne ma man lima nek nonu bidala manopi, ma nopi nga ne ma waaye ba tay sax tu vas plus loin suma wote jeme ci lima nek nekk propagande nit ñi di len daawa ci lima nek ken waratu la jël sama hadith waaye yow mi won nit ñi ci li nga nek yow yow war nañu jël say hadith yow il faut ñu xam ne amul doomu yàlla amul suñ biir de ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ kenn ci ñun du doomu yàlla du sëtu yahud du jarbaatu nasara ndax na ab naawullaay wa ahibaahu yi jeex na bu yàgg <coughs> donc ñoom noonu la ñu tëralee mbir yi maanaam xaaj jullit ñi ay xaaj classe bii mooy classe vip bi ñoom la ñuy tuddee ahlu sunna classe bii mooy classe soute à bagage yi ñoom la ñuy tuddee nitu bidaay waxuma la sax économique wala business business ñoom soute à bagage lañ leen tuddee ñoom voilà foofu la ñuy sànni mbalit yi ñoom ñooy nitu bidaay léegi képp koo xamante ne ci soute à bagage yi nga bokk maanaam ci géttu bay gi nga nekk yow boo riwaayaa xadis il faut mu jaar ci ay filtre il faut d' abord ñu xool ba xam xadis boobu yow duwul luy propagande sa école il faut ñu xool xadis boobu est ce que duwul luy défendre sa ay icône école wala say say say nu mu say personnage yi nga xamante ne da nga leen di màggal ci sa école il faut ñu xool ndax xadis boobu du luy jàppale ay principe yoo gëm yow maanaam tey jii benn murid bi su riwaaya xadis boo xamante ne dafay jàppale lenn ci mouridisme wala ci yoonu Serigne Touba wala ci kenn ci njabootu Serigne Touba gi il est fini benn tijaan su riwaaya benn xadis buy jàppale benn ponk ci tijaaniya wala ci yoonu tijaan wala ci kenn ci rumuusu tijaaniya il est fini xadis boobu ci mbalit ma la par contre par contre man mi tuddee sama bopp nitu sunna man su ma riwaayee xadis boo xamante ne dafay jàppale sunna xadis boobu automatiquement ci Buxaari muslim la a dugg su ma riwaayee xadis boo xamante ne dafay jàppale les principes sunna xadis boobu ci Buxaari muslim nga ko war a fekk su ma riwaayee xadis boo xamante ne nii dafay jàppale les rumuz sunna maanaam ñi nga xamante ne ahlu sunna yi dañ leen di màggal xadis boobu ci Buxaari muslim nga ko war a fekk bu nit ki riwaaya xadis buy màggal Seydina Ali trop ñu ne ko yow chia nga tegal xadis bi de côté mais bu nit riwaaya xadis buy màggal Muawiya wala buy màggal Seydina Omar wala buy màggal nangam xadis boobu mu ngi ci Buxaari mu ngi ci Muslim bu nit riwaaya xadis buy màggal Seydina Babacar lu xadis bi mën a indi ci ngëneel mu ngi ci Buxaari ak Muslim amul benn problème mais bu nit riwaaya xadis buy màggal Seydatuna Fatima bu xawee foor tuuti nañ ko yóbbu ci sunan yi wala ci masaanid yi daal mais bu mu dugg ci saxiixayn yi dafay am problème mais bu dee sayyidatuna Aïcha xadis bu ñu fa indi na dem ci Buxaari ak ci muslim moom dañ koy tëkkale sax ak soos ak ay yooyu noonu maanaam ay ah, ñu ne la ñu ne la yonentu bi nee na diw sàngam moo gën diw comme ni soos gënee ci lekk yi kan moo la wax ne soos moo gën ci lekk yi yow xadis boobu soo ko déggee nga xam ne yonentu bi waxu soo ko déggee tonalité bi soo ko déggee xam ne li génnewu ci làmmiñ yonent Vous comprenez un peu les deux poids, deux mesures. <coughs> Non la affaire de di deux poids deux mesures yooyu noonu lay doxee donc bu faites ne bu faites ne yow yow da ngay football bu fekkee yow footballkat nga man pour man football bi daal lépp loo riwaaye luy le football wala luy wax ci ngëneelu football wala sax lu jege sport Hadith, bi wérul ki ko riwaaye nitu bidaa la parce que footballkat la mais man mi nga xamante ne man mi nga xamante ne damay soccu ak di cëkkal sama tubay bépp xadis bu ma riwaaye ci ngëneelu soccu wala ci ngëneelu cëkkal sama tubay xadis boobu yow amoo droit wax ci ci biir saxiixul Buxaari ak muslim nga ko war a fekk ci man mi nga xamante ne damay saxal sama sikkim di ko guddal bépp xadis boo riwaaye ci guddal sikkim ci biir buxaari ak muslim nga ko war a fekk ñu ne la lii mooy diine yàlla ji billaahi bis bu ma nekkoon courant si ngeen am problème sant lan yàlla ba ma nekkulee coraniste nekkuma shit su ma nekkoon coraniste wala ma nekk shit dinaa leen sonal trop parce que billahi dama leen na xam lu weesu nu ngeen xamee seen bopp da ngeen war di julli di dugg xalwa di sant yàlla bi ma nekkulee chiite daan naa ko wax salafiste yi jamono bi ñuy nekk ci groupe WhatsApp bi ñu may tuumal naan la shit la ma ne leen billaay da ngeen war di dugg xalwa di def 124000 vingt di sant yàlla bi ma nekkulee chiite bis bu ma nekkoon shit da ngeen am problème parce que boobaa ni ma leen di lakkalee chiit yi mënuñ leen koo lakkale ni ma leen xamee chiit yi xamee wuñ leen dañoo sant yàlla su ma neen su ma su ma naan leen tijaan laa taalibe Baay ñu nekk fii di di di sagu jaay kii naan non non non baax na <coughs> man waxuma leen tijaan laa taalibe Baay laa pour am pour ngeen am lu leen neex mais sant leen yàlla bi ma ko nekkee bis bu ma nekkoon leneen lu dul loolu yàlla xam na ni da ngeen di gàddaay yéen ñëpp. da ngeen jaay seen bagage yi génn dëkk bi parce que du ngeen du ngeen fi xajati allahul mustaan nañu continuer wër na yàlla wër na yàlla da leen di wax naan non tijaan laa ñu naan la non doo tijaan yow doo sufiyanke dañuy xam nga dañuy bajantu xaw ma dañuy bajantu parce que yooyu yëpp reewaan moo bëri ay façon en fait dañoo am dañoo am maanaam leen tijaan la la moo tax ñuy am lu leen di wax waaye bis bu ma nekkoon sal kii bis bu ma nekkoon chiite euh, wala ma nekk xoganiste dinañ am liggéey dinañ am liggéey bu toll ni inama sabil mu ne fa zahabat jamaatun ila tashdidi fi qabuli riwayati almubtadii wa radduha itfaan li bidaatihim wa zajran lahum mu ne yenn ci borom xam-xam yi dem nañu ci maanaam d'accord nañu ci teengal lool ci rejeter riwaaye nitu bidaa ak bañ koo jël ndax lan ngir noppiloo nitu bidaa yi kon nga déggee ci ne daanaka benn genre complot la woon rek complot boo xamante ne ay nit ñoo d'accord toog ne ñun voilà man ak yow buñ jël xadiisu bépp bu mbokki galaswaat di wax nañ ko delloo pour nit ñi bañ leen pour nit ñi buñ leen ana diine bi ana yàlla fi ma jàpp ne yéen yéen ñuy wax ne diine ji diine dëgg la fépp fu dëgg jugee dañ ko war a nangu ak ci làmmiñ bu mu mënti jugee unzur li zaatil qawli la lil qaayili fal haqu maqbulun walaw min jaahili chaque jour loolu ngeen ñu wax dans le principe on est d' accord sur ça et on vient après vous nous dites que non dañoo d' accord ne nitu bidaa moom buñ jël waxam donc vous vous vous complotez contre d' autres musulmans pour ne pas prendre leur parole pour ne pas prendre leur témoignage pour ne pas recevoir leur texte ana yàlla ci mbir mi ana diine ci mbir mi sama yenn mbokk taaliba Baye tamit léegi léeg man naan leen taaliba Baye laa ñu nekk di am lu ñuy kii di bañantu galas bis boo wéeteeg ñoom nee na nañ sant yàlla bi ma nekkee taaliba Baye <coughs> foofu rek laa ci yem <coughs> sant yàlla bi ma nekkee taaliba Baye dañuy bàyyi seen bañante gi seen bañante bu ma nekkoon salafiste billaay danañ am problème alors mu ne wa waafaqahum wa waafaqahum jamaatun uxra ala zalika illa annahum xaalafuuhum fi jawaazi riwaaya fi jawaazi riwaayati anhum wal ixtijaaji bi xadiisihim baada mawtihim la siyama isan faradu xool leen lu reetaanlu li mu ne am na yenn ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne ni seen teegal googu ñee def dañ cee d'accord ak ñoom sauf que dañu wuute ak ñoom ci ndax nitu bidaa buy woote jëmee ci bidaawam dagan nañu riwaay ci moom ginnaaw bi mu deewee ndax dagan nañu riwaay ci moom ginnaaw bi mu deewee c'est-à-dire tey disons. Abdul Karim Ibn Abil Muxaariqi je donne le nom comme ça nitu bidala la léegi génn na aduna est-ce que warna naa mën ci mom sachant que légui contouram tej na donc il n'a plus de possibilité inventer ay hadith yu bess donc li mu jot a nga que daf ci am infiraat ndax ci mom est-ce que vous comprenez un peu

moy comme bérébi galas ngeen jégal ma ci kàddu gi ñi ngeen di dégg souvent fi ñuy wax naan bu leen déglu murid yi bu leen déglu tidiane yi na ñëpp noppi ñoom ñoo war a wax façon mel noonu kon gis ngeen ne yàgg na depuis des des des des des des centaines et des centaines d'années am nañu amoon xalaat yooyu que ne képp koo xamante ne ñoom dañ koy tuddee ni tubi daa kooku il n' a pas droit au chapitre warta wax il n' a pas droit à la parole léegi am nañu dëppoo ak ñoom dans le euh, sur le fond mais sur la forme ñu ne léegi est-ce que kon nitu bidaa boobu ñu bañoon na jël waxam bu xasee génn àdduna nga xam ne il n'a plus la possibilité d'inventer de nouvelles paroles wala de nouveaux hadiths mën nañu jël hadith yi nga xamante ne jot na koo indi déjà mais principe bi du xam-xam parce que qu'est-ce qui nous dit et qu'est-ce qui nous rassure que ne haditham yi mu jot a am déjà du lu ñu inventer bu fekkee ci loolu la koo war a jël haditham bu dee kay ba muy dund nga waroon mën a jël haditham parce que ci nga gënoon na mën a amee possibilité de lui apporter la contradiction wala du noonu ba ngay nangu xadisu nit ki ba mu dee ba muy dund nga waroon na gën a mën a nangu xadisam <coughs> mu ne wa zahabat jamaatun yeneen nit donc deuxième kon deuxième wuute dem nañu ci ila jawaazi riwaayati anil mubtadi ila jawaazi riwaayati anil mubtadi am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom jàpp nañ ne mën nañoo riwaaye jëlee ci nitu bidaa mi man <clears throat> ci ñoo xamante ne nii euh, duut ñoo xamante ne dañuy daganal seen bopp fen ak ñoo xamante ne nii waa ahlu sunna yi yéefeerloowu leen walam yukaffiruhu ahlu sunnati ahlu sunna yi yéefeerloowuñ ko souvent en tant que Moi, je me considère comme quelqu'un de normal peut-être mais je suis très gêné je suis yu melni mais je suis obligé obligé ko parce que bind mais sectarisme en fait ma ci wax mais sectarisme voilà des personnes qui se considèrent comme une élite comme l'élu de Dieu le peuple élu de Dieu ils ils appellent Ahlus Sunna ils se permettent de lo ki génnee qui, ci diine étiqueté ki tuddee ki nitu bida tuddee ki zindiq qui ki fasiq et ils se permettent après de jël waxu ki rejeter waxu ki accepter waxu ki ajuster waxu ki déformer waxu ki et tout ça après ils se ils se permettent de se dire ñom ñoy représentant wu yalla ci kaw suuf nous ñom ñoy voix de salut ñom ñoy seule communauté buy mucc al firqan najia excusez-moi sincèrement mais lan mooy mën nañu jël nitu bidaa ay waxam yoo xamantene ni bu fekkee nitu bidaa boobu duwut kuy daganal boppam fenn waaye duwut koo xamante ne ahlu sunna lo nañ ko maanaam kon tey jii man Cheikh Baye bu fekkee nitu bidaa la tant que waa ahlu sunna yi yéeféerloo wuñ ma rek yow mën ngaa jël sama wax mais dès lors que am benn ahlu sunna bu lekk ba suur mu xool ma neexuma ko mu yéeféerloo ma rek bul jëlati sama wax lii la wax léegi junj en fait ils vont tourner autour du pot mais ça va ça va finir par ça genre hijacking la en fait maanaam dañu pirater diine yàlla ji def seen bopp nax abna wallahi wa ahibahu ni ma koy waxee nii bu ko chiit yi defoon wala tijaan yi def ko noonu laa koy waxee wala murid yi def ko nii laa koy waxee bu ñu ko defoon nii laa koy waxee maanaam tey ji bu amoon benn tijaan bu am prétention bu démesuré bu mel nii nii laa koy waxee surtout ci règle xam-xam je n'ai pas ce problème qu'est-ce que c'est nañ jël waxu nitu bidaa nit koo xamante ne ahlu sunna wala mu yukaffiruhu ahlu sunna mais lii réeglu xam-xam ci li ma jàpp man mooy nañ jël waxu nitu bidaa même bu fekkee nitu bidaa la bu dee wax jooju noonu dëppoo na ak dëgg nañ ko jël c'est jël waxu yéeféer même bu fekkee yéeféer la bu dee wax jooju noonu dëppoo ak xam-xam mbokk yi nekk ci TikTok bi application bi nee na live bi dina jeex dans cinq minutes donc vous savez ce que vous avez faites ce que vous avez à faire man je suis en train de faire ce que j'ai à faire bu fekkee bëggu leen live bi jeex bu dee da ngeen a bëgg mu dagg <clears throat> voilà donc sincèrement parler en fait yàlla ci alxuraan yàlla ci alxuraan bi muy wax yéeféer yi lan la leen wax sëñ Assane Madras maa ngi lay maa ngi lay ziar Assane namu naa la trop j'espère que tout va bien gëj nañ laa gis ci daara ji itam waa daara ji chaque jour ñu laajte la euh, yàlla ci alxuraan. yàlla ci alxuraan bi muy wax ci yéeféer yi lan la leen wax qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin waxul leen ñëw leen ngeen changé seen tur yi nekk ay julli daf na leen indi leen seeni argument bu dee la ngeen di wax dëgg la maanaam lii wëral lii wëral waxu nit lii vérifié waxu nit du wut étiquette bi nit ki takk wala tur bi nit ki tudd lii wéral waxu nit mooy dëppoom ak dëgg point à la ligne on continue lii wéral xadiisu nit دول دون اهل السنه بين كو ولا اهل البدع ولا اهل الشرك ولا اهل الزندقه ولا اهل الفسق ولا اهل الفجور لي ويرال واخو نيت موي موافقه موافقه الكلام مع الحق ندبوك دغ اوني اولا سيل بلي اوني اولا لي مو سما جانغال نيخول ني بري مي علم الحاج كامل ني لاي دوخي مان جو جو زانسين با لي ندي مانا غيس سي جوجل اك سي يوتيوب yàlla qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin la wax indi leen seeni argument waxut na ñëw leen ngeen changer seen tour yi wala indi leen seeni tur ñu xool <coughs> c'est un peu c'est un souvent c'est énervant de lire ces genre de trucs mu ne wa in kaana rasan wa daa'iyan donte nit kooku noonu ponkal la ci nitu bidaay bidaay ba mel ni galaswaat xam nga galaswaat ponkal la ci nitu bidaay maanaam moom ci nitu bidaay duwul ku ndaw maqaama bu rëy la ci am ndax daf ci am ay taalibe am ci ay muqaddam am ci ay xalifa am ci ay représentant am ci ay daayira ñu koy jox addiya am ci ay voilà am ci sax ay titre yu ñu koy woowee ndax galas wax dafi mu toll ni dégg naa ñu ngi koy woowee xalifa yàlla donc wa in kaana raasan loolu lay tekki donte dafa nekk chef ci biddaa bi fu cee nekk xutbu wa daaiya donte dafa nekk wootekat ci bidaa boobu noonu nga xam ne propagandiste la tant que ahlu sunna yi wéefegloo wuñ ko rek te nekkul fenkat nañu jël waxam gis ngeen wax ji de encore contradiction bi xam nga au début la règle principale dafa la daan wax ne nitu bidaa dañuy jël waxam tant qu'il n'est pas propagandiste de son bidaa e hadith bu mu riwaayee n'est pas un hadith de propagande on peut accepter ce qu'il dit maintenant ils viennent ils te disent ils te disent nitu bidaa dañuy jël waxam donte bu fekkee c'est un ci bidaa bi wa daaiya donte bu fekkee propagandiste la ci bidaa bi maadaama lam yukaffiru ahlu dañuy jël waaye iza kaffarahu ahlu sunnati bu fekkee ahlu sunna dañ koy yéefeerloo même bu fekkee li mu wax dëgg la même bu fekkee li mu wax amul benn rapport ak propagande ci biddaa bi même bu fekkee li mu wax amul benn propagande ak bidaawa amul benn rapport ak bidaawam bi boobaa duñ jël waxam mu ne isa kaana mawsuufan isa kaana mawsuufan bi sitri wa sidqi wa dabti isa lam yaru ma yushidu bihi bidaatahu wa isa lam yaru ma yushidu bihi bidaatahu bu fekkee riwaayewul loo xamante ne dafay jàppale bidaawam yéen a comprendre donc li mooy attey riwaaye nitu biddaa pour ñoom ali ibnul madini mu ne qultu li yaxya ibni saïd wax naa yaxya ibn saïd al ansaari ne ko inna inna abdarahman abdurahman ibnul mahdi yaqulu utruk kullu man kaana rasan bàyyil képp koo xamante ne nii chef la ci biddaam bi képp koo xamante ne rasul bidaati la yad'u ilayha maanaam koo xamante ne dafay woote jëme ci bidaa ba ba nekk chef ci bidaa ba kooku bàyyil ay waxam qaala yaxya bnu said daal di ko ne kayfa tasnau bu boobaa naka ngay def ak ku mel ni qataada naka ngay def ak ku mel ni ibnu abi rawaat mooy abdul majid ibnu abi rawaat dañuy wax ne qadar yi la woon <clears throat> naka ngay def ak ku mel ni omar ibnu zar ak ñeneen maanaam li mu bëgg a wax fii mooy euh, am na ay nit ñoo xamante ne ni tak taxe nañ leen dañuy tubida te riwaaye nañ ci xam-xam loo xamante ne ni boo bàyyi woon seen xadis trou bu mag am maanaam vidde bu mag a mag am boo boo sànni woon seen xadis vidde bu mag a mag am mu ne kon bu fekkee dañuy bàyyi waxu nitu bidaa yëpp nan la ñuy def ak xadis yi ñii ni summa qaala yaxya yaxya daal di ko ne in tarakta haza ad darb tarakta naasan kasiran mu ne ko boo bàyyee xeetu nit ñu mel nii maanaam ñu mel ni ñoom qataada ñu mel ni ñoom ibnu abi rawaat ñu mel ni ñoom amr ibnu zar wala omar ibnu zar boo leen bàyyee loolu daf lay waral di nga bàyyi ñeneen ñu baree bari ñu mel ni ñoom parce que y a énormément de gens une liste bu grandiose bo xamante ne ñëpp tu vas les taxer de nitu bida te façon bi lañu ñu mel te xam-xam bi ci ñom la nek ci ñoom la nek mu ngi mel tay ji supposons ben salafiste ñëw Sénégal ubbi fi ben business rek waaye né mom du jaay képp ko xamante ne nii nitu bida la du ko jaay marchandise wala du jëndee ci nitu bida marchandise je pense pas que je pense pas que commerçant dina dem connaissant que Sénégal ça la fait suñ fi pick up suñ doom yi Il fi pick up voilà ci pick up Il dana am place yu dess alors mu ne wala pour résumer والكلام على رواية المبتدع على مقامات maanaam li ñu mën a takk ci riwaaya yi nitu bidaa on peut le par catégorie première catégorie bi mooy maqaamul ula <coughs> mooy radduha mutlaqan ida kaana min man yukaffaru bi bidaatihi maanaam mooy rejeter xadiisam catégoriquement bu fekkee nit la koo xamante ne dañ koy yéefeegloo ngir bidaa kan mooy koo xamante ne dañ koy yéefeegloo ngir bidaawam c'est à vous de voir am na koo xamante ne nii ñoom nee nañ yéefeer la parce que nitu bidaa la mooy ñan <coughs> soit genre waxuma ne man dama leen di yéefeegloo je vous dis ñoom li ñuy wax par exemple ñu mel ni jaxmiya yi ñu mel ni qadariya ñu mel ni euh, Nusayriya ñu mel ni euh, Safuriya ak façon xeetu kuréel yooyu nga xamante ne ni amoon na ñu ne ñooñu dañ leen di yéefeerloo ngir seen bidaa ay bidaa mu kaffira la gëm donc ñooñu seen xadis dañ koy delloo jumlatan wa tafsiran voilà ñu ne imaamu nawawi wax na ci téere bi tudd al irshad mu ne al mubtadiu allazi yukaffiru bi bidaatihi laa tuqbalu riwaayatuhu bil ittifaaq mubtadia boo xamante ne nii danañ koy yéeféerloo ngir bidaaw mu ne kooku kenn du nangu xadiisam bil ittifaaq bu ñu waxee ittifaaq mooy ak taxlibu lil aksar loolu mooy première première atte bi ñu jox xadiisu nitu bidaa première catégorisation bi deuxième maqama bi mooy qabuluha ida kaana maarufan bi sidqi wa ida lam yakun wala lam takun riwaayatuhu mimma <coughs> mimma tuaddidu wa tushiidu bidaatahu maanaam nangu dañuy jël riwaayaam dañ koy accepté bu fekkee nit ki xamee nañ ko ne nit ku dëggu la te ba pare riwaaya bi mu indi nekkul loo xamante ne dafay jàppale ak di dëgëral bidaawam gis ngeen de gis ngeen ni ñuy enchaîner les gens maanaam Il te met des bâtons il te met des bâtons dans les roues de sorte que yow mi wuuteeg ñoom tu n'auras pas droit au chapitre tu n'auras pas voix au chapitre en fait Il te met des bâtons dans les roues vous comprenez danañ la tegal ay obstacle, de sorte que yow doo mën a wax sa wax foo jaar da nga am ku ko rejeter première catégorie bi nee nañ la bu fekkee nit ku ñuy yéefarloo ngir sa bidaa la sa xadis dañ koy rejeter catégoriquement et automatiquement deuxième catégorie bi nee nañ la bu fekkee nitu bidaa nga sa xadis mën nañ koo nangu bu fekkee xamee nañ ne ku dëggu nga mais à condition que xadis boobu ngay riwaaya bu mu nekk luy jàppale sa bidaa bi yow moom laa leen doon expliquer sànq maanaam yow murid bi booy wax ci xadis xadis bi bu mu nekk luy dimbale sa mazhab wala sa tariqa yow tijaan bi booy wax ci xadis xadis bi bu mu nekk luy dimbale sa mazhab wala sa tariqa yow chiite bi booy wax ci bi bu mu nekk luy dimbale sa mazhab wala sa tariqa léegi laaj ko laaj ko ne ko yow sunit bi booy wax ci xadis xadis bi moom bu dimbalee sa mazhab wala sa tariqa ndax xadis boobu dañ koy jël loolu ko jël laaj ko rek nga noppi nga toog seetaan ko et d'ailleurs chaque jour hadith yi ñu leen di indil di leen ko bëgg a convaincre ay hadith yuy propagandal seen tariqa la ñoom ak seen diine alaykum bi sunnati man taraka sunnati man amila amalan laysa alayhi amruna chaque jour hadith yi propagandal est-ce que yéen a ngi gis maanaam comment il nous comment il nous roule dans la farine ces gens-là man waxuma ak bas étage bi man je parle du plus haut du plus haut du plus haut ña doon inventé hadith yi lay wax ak ñu doon tekkaagal yi maanaam qadari bi wala jahmi bi wala mu'tazili bi il n'a pas droit wax xadis boo xamante ne dafay jàppale école am mais sunnit bi moom chaque jour il a droit parler de xadis buy gën a glorifier sunna <coughs> yéen a ngi yéen a ngi dégg seen waa waaraate yi tout le temps n'est-ce pas ubbi leen seen téere ngeen xool aleykum bi sunnati wa sunnatil xulafaa rachidin xellante woon boo gisoon benn xadis bu wax aleykum bi tariqat yi wala aleykum bi tashayu'i wala aleykum bil i'tizal xadis boobu mawdu la mutlaqan pour ñoom kaka riwaaya ak ay mbokkam yi dañuy bombardé yu bombe atomique lañ leen di doo soo moytuwul mais na moom tànk yaa ngi dugal baatu na di ko sanctifié ci sa sa wax waxal lu la neex xadis bi dana dugg ci buxaari dana dugg ci muslim dana dugg ci abu daawud dana dugg ci tirmisi dana dugg ci nasaayi dana dugg ci ibnu maaja dana dugg ci ibnu manda dana dugg ci tabaraani dana dugg ci daaru xutni dana dugg ci n'importe où yaa ngi wax luy propagande ral sunna ngi wax luy propagande ral sunna mais bu fekkee ne luy propagande rek sa tariqa la moom waroo wax bu mu jëm kaw voilà ni ko ni ko maire bi dafay waxee woon bu mu jëm kaw boo koy wax rek xadis bi wérut te yow ci sa bopp dañ lay effacer ci administration bi amatoo droit wax <clears throat> c'est un peu drôle souvent c'est un peu drôle mais nous on dañ ñu ba tey jii voilà après après ñu gis répercussions yi nag ba tey jii chaque jour nga gis benn Omar Sall bu taxaw ci kaw minbaram di la terroriser naan la toppal sunna toppal sunna tey amoo droit toppal tariqa yow yow boo ko ne toppal tariqa mu ne la yaa ngi woote ci bidaa mais moom mi lay woo naan la toppal sunna li mu nekk mais yow amoo droit woo ko ci li nga nekk parce que yow boo ko woowee ci li nga nekk yow ci bidaa nga ko woo maanaam daf naan la bul gàmmu parce que bidaa la yow amoo droit woote ci gàmm mais moom dina la woo ci conférence loolu moom sunna la moom dina la woo ci colloque loolu sunna la moom dina la woo ci wàccee alxuraan ak ci concours alxuraan loolu sunna la musaabaqa moom dina la woo ci mu'tamar loolu sunna la mais gàmmu màggal ziar ful yaa ngi woote ci sa bidaa yaa ngi woote ci sa bidaa yaa axi moytul bidaa yaa ngi woote ci sa bidaa yaa axi moom mi lay séddale carte membre nag naan la conférence oustaz diw ak cheikh diw ak àllaama diw non loolu sunna la yaa axi yaa axi loolu sunna la loolu loolu bu ko weddi loolu bu ko weddi loolu sunna la jabaate dafa bëri ay façon bëri ay façon neexut a wax mais dafa bëri ay façon <coughs> sànnil sa kurus gi bul ma woo ci téye kurus bul ma woo ci wasifa bidaa la yonent bi defu ko mais quant à dajaloo ci jumaa ji toog moom naan da ngeen di def conférence xaw ma da ngeen def musaakara xaw ma da ngeen di waxtaan xaw ma da ngeen di def daawa di ak ay gaal loolu moom yonent bi def na ko nañ dem defi ko <coughs> loolu moom nañ moom yonent bi def na ko nañ dem defi ko mais dugg avion wàcc Medina bàyyi wala dugg avion wàcc Tiwaawan wala dugg avion wàcc Touba loolu yonent bi defu ko yaa axi bidaa moytul bidaa yaa axi يا أخي شرك yaa axi shirk taxaw di zikar wër daayira loolu yonent bi defu ko yaa axi moytul bidaa mais dajaloo Mohammed Ben Salman toog buur bi toog mufti yi toog ñuy tëgg di fecc junaadiriya bëm bëm bëm loolu moom yonent bi def na ko mën nañ ko def yaa axi yaa axi loolu mën nañ ko def bind ay xasida woy ci yonent bi bind ay diiwaan loolu yonent bi defu ko yaa axi yaa ngi yóbbu yonent bi fu ko yàlla yóbbul moytul bokkaale mais bind ay fatwa yéfek lo julli ñi loolu moom yonent bi def nako ku def nangam yéfek la nañ dag batam ku def nangam nagn dag batam loolu yonent bi def nako ya yaa axi bismillah allah akbar loolu yonent bi def nako ko yonent bi def nako def nako bind ay fatwa ay mujalladaat yéefeeg loo kii yéefeeg loo kii yéefeeg loo kii loolu yonent bi def nako seddel ay ticket safara yonent bi def nako mais bind ay tagg yonent bi magal ko jox ko dara non ya axi maytul shirk maytul shirk ya axi maytul shirk ya axi shirk baaxul bidaa suñ doom bàjjan yi yàlla na leen yàlla sàmm dañoo baax de wallahi suñ bi nekk na àdduna bi du neex man je les aime bien dañu xorom en fait sincèrement parlé mu ne الحافظ ابن حجر وحنا هدي الساقي المهم مقدمة فتح الباري من اختلف أهل السنة في قبول حديث من في في قبول حديث أه من هذا سبيله مانام بروم خم خم يي ووتي نانيو سي جيل حديث كو خمانتني لي موي يونام مانام بدا اذا كان معروفا بالتحريز من الكذب مانام بو فكي ولا بالتحرز من الكذب بو فكي خامي نانكو مويتو فن ومشهورا بالسلامه اك كو خمانتني ني خاوي سي وين موتو من خوارم المروءه ci loo xamante ne nii dafay ndog mañagus maanaam luy yàq jikko yeeg ak lépp luy jikko ju ñaaw mu ngi koy wëttandiku <clears throat> mawsuufan bi diyaanati wal ibaadati bu fekkee ku ñu siiwee jikko yu baax la ak diine ak jaamu yàlla même bu fekkee nitu bidaa la mu ne nitu boroom xam-xam yi wute nañ ci ndax kooku dañoo war a jël xadisam wala war a su koo jël mu ne yuqbalu mutlaqan am na ñu wax ne dañuy jël xadisam mutlaqan wa qiila yuraddu mutlaqan am na ñu wax ne dañ koy delloo mutlaqan maanaam ngeen baal ma avec tout la respect qu'on doit à tous boroom xam-xam yàlla leen yàlla fay lu ñu liggéeyal l'islam Mais souvent, ils n'arrivent pas à nous donner une réponse exacte. On nous dit qila wa qila, qila wa qila, qala wa qila wa qila kaza, qila kaza, qila kaza, qila kaza. Et souvent sur des choses tellement contradictoires, ba do xam ban nga ci wara japp. Manam qila Donald Trump moy président Sénégal. Non, qila Diomaye Faye moy président Sénégal. Non, qila euh, Macron moy président Sénégal. Kan la ci? Kan ci? est-ce que est-ce que duñu coupé est-ce que duñu coupé damaa war a damaa war a kii tënk tuuti nañu on se on se reprend ce soir incha allah. on se allah.